You better live, dog. You listen. Well, well. Show MC, Jungle Lee, Jungle Lee. Yeah, yeah. yeah. MC Jungle, Jungle, Jungle, Smoke a little. Uh huh. Yeah, like John Steve Jones. You better oh, love. Hey, yo, xoolal rib bi may dugal ci bi syncope. Wis ko ndox MC money kër jaaj ne nga senkop MC bu yelwan flow rang leen benn benn dalal senkop rab yombul ni nga ko foogee am na lu mu laaj MC yaa ma ko gën a xam yéen yéen seen bopp ci mindi mi ngay dooree fiis naam tactique flow yu rafet yow jam critique yaa xam nga nekk hardcore war a ngay rab rab bu sadee ci yow en tous les rab fiis musique la ça doit être tere ñu cycle la maa ngi lay conseillé nga dem ci studio bu hip hop pour programmer bi bi nga bëgg son bu la ci sonal ko dindi bu ko sëpp please yow maanaam lu jëm ci ay roske charleston yes clair taxi bu leer sa partenaire étudiant bu nekkoon ISM tey nag ñu ñëw pour jël suñu diplôme licence fii nii tey diplôme bii nii ñu ngi koy jël ak mbégte bu rëy mbégte bu rëy parce que dañu am juróom ba euh, dañu am trente nationalités yoo xamante ne ñu ngi fii nii ñu nga xam ne trois ans yi ñu fi jàng dañu fi jàng savoir être savoir faire ut nañ fi xam-xam bu nga xamante ne ni tey may nañu ñu mën a représenter suñu école mën a représenter suñu dëkk muy Sénégal mën a représenter l'Afrique dans le monde et partout donc mbégte bu rëy la ñu am tey jii nii pour euh, jël jot suñu diplôme te di sàkku ñaan ci ñëpp ñi nga xamante ne ñoo ngi ñuy déglu jërëjëf balaa ñuy delluwaat ci français est-ce que yaakaar ngeen ne lii ngeen jàng fii doy na pour ngeen am liggéey boo leen génnee euh, xam nga laaj boo xamante ne la mu ngi ñëw souvent mais ñun li ñu jàngal ISM mooy apprendre pour mooy da ngay jàng pour yow nga créer emploi da ngay jàng pour nga taxawal benn liggéey boo xamante ne yow sa bopp da ngay doon koo xamante ne yow yaay jël ay nit di leen fay paye weer loolu noonu lañ ñu jàngal ISM donc ñun yaakaaruñu kase ci entreprise donc su nekkee ci entreprise nag ku nekk yaay jaay sa bopp sa produit voilà merci. ree gambi ma sëkk bu joxe ins nga xam noo si doo ree bul tipsee eh. amal ci kaw biit bii compter say mesures pour encadre génn biit bii dee ci foo te nang ci waane eh. wi refrain di dugg na nga fexe ba nang ko wane fiis eh. na yow waneel sa dégg daaj marquel ko temps tey harmonisé et jow harmonie l'idée eh. ay album solo yu mel ne compilation il est temps confidation wax ko rab du loo xalaat mu ñëw sa xel wax ko am nga talent bu ñu confirmé bu la neexee dox doxu confirmé ba taamu tey affirmé yow li ci boole sànci MC la neexal rek mu jàngal c'est quoi le vrai bilan de notre président de la République. c'est quoi. regardez sur leral.net.